حجيج بمزدلفة وأفدوا إلى منن ورموا جمرات وقلف أبانا آدم عليه السلام بيده من سلسل كالفقار وسجد له ملائكة المقربين الأطهار الله أكبر ولا تنفع طاعة متئين ولا تضره معصية العاصين فله الحمد على ما أولى وأسدا وله الشكر على ما أنعم وأتاه أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو عاصم من زلة الأقوال والأقفال والأفعال والمتلئ على الدمائر والنيات الله أكبر في حجه عمرته في يوم العيد وأشهد أن نبينا محمد عبد ورسوله أفضل من صلى ونهر وحج وعتمر ووقف بمزدلفة ومصر الحرام صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وإخواته من الأنبياء والمرسلين الخيارة والملائكة المقربين البررة البررة البررة وسلامة سليمان الله أكبر الله أكبر والحمد لله كثيرا طيبا مباركا ملا سماوات ملا أرض ملا ما بينهما وملا ما فيهما وملا ما سيت من شيء بحمد وبعد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا لا إله إلا الله الله أكبر في حج بيته وهو فريدة على كل من استطاع إليه إلى ذلك سبيل من مسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره وسبيل طريق سبيل الله أكبر كلما أحرم للحج وأمر وقيل لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وقال تعالى ولله حج بيت ليس سبيلا وسبيل كما قلنا آنفا هي طريق السبيل وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير ذات تقوى وتمام حجة ببدعة الأيام بعد يوم هذا الله أكبر الله أكبر وصلى الله على عباد الذين أصفاهم وسلم تسليما كثيرا وبعد ويا عباد الله فهذا يوم عيد الكبير إنما هو عيد الأكبر بل هو يوم العيد أضحى فصلاة عيدين إنما إنها سنة مؤكدة على من تجب عليه جمعة ويخرج إليهما وما فات اليوم الأول ما لم يستطيع في يومين أولين فليمديه يوم الثالث من إيد ومن فاته هذا اليوم الثلاثة فقد هبط عنه الأجوبة ذبح أدهياته ولا يحزن من لم يقدر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب في حياته الكريمة كبسين أملهين أقرين فقال في ذبه أحدهما هذا لمحمد وأهله وقال في زبه آخر هذا لكل من آمن وصدق به إلى يوم القيامة فتوبى للمؤمنين الصادقين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن يجب أدهيا فمن لم يجب أدهيا فقد دها أنه نبي رحمة المحتدى بل نبي المرحم أزمى مصطفى مجتبى منتقى وقال تعالى وما أرسلناك إلى رحمة العالمين عباد الله فهذا يوم عيد يوم أهل الله في تأمى ورمى فيه سيامة فاكرموا فيه إيالكم إيالكم فرهوهم واكسوهم فيه أحسن سياب وأجودها على حسب إيمانكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقال عباد الله أحب إلى أنفهم لإيالي وأفضل ثياب ثياب فأفضل ثياب يوم العيد لباس جديد إن كان أسودا فأفضل يوم الجمعة للأبيض وإن كان قادما الله أكبر في يومه وإيده الذي ابتلى فيه إبراهيم قليلا ذبي ولد إسماعيل وقال تعالى فلما أسلم وطل جبينا قال إنه يا إبراهيم أنقلت رؤيا إنا كذلك المحسنين إنها لو بلاء مبين فدينا بسبه العظيم وتركنا عليه أخ في آخرين سلام على إبراهيم كذلك نزل المحسنين فذبحوا ليس بتفقر ولا بتكسر وقال تعالى وعلموا أن حياة الدنيا لعب ولحو وزينة وتفاعل بينكم تغاسل أموال والأولاد صدق الله العظيم بل إنما هي إيد شائرات من شائر الله ومن يعزم شائر الله فلم تعم القلوب ومن ساكم من مناسك الدين حنيف لتذكر اسم الله على أرمزقه من بهمة أنا وقد سقرها الله لتذكروا اسم الله عليها سوافا فكلوا منها واتمئوا قانيا والمعترى لعلكم تشكرون وقال تعالى لن ينالوا الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم إلى قوله وبس المحسنين كذلك نزل المحسنين الإيد أيام حبب الله فيه طاعات وكره فيه المعصيات وقال عليه الصلاة والسلام من أساني يوم الإيد وقد أساني يوم الوعيد من أساني يوم الوعيد اللهم اللهم اجعل يد خيره وبركته واحفظنا بلادنا سنغال واحفظنا بلادنا سنغال وصل بلاد العالمين اللهم انصرنا النصر اللهم انصر سلطاننا وسلطان المسلمين وانصر وزراءنا وزراء وأولك وأولكاء وساكر يوم الدين وانصرنا في إخواننا في فلسطين وفي الغزة المسافرين والمقيمين اقبل بارك على أمة محمد أجمعين ربنا آتينا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أنصر الإسلام والمسلمين وعلى الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وفريات المسلمين جميعا العالم مصر مقاربها وطولها وأرضها وأرضها وأرضها وأرضها سبحان ربك رب المسؤول والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xam naa dañuy gàttal waxtaan bi rek. dañuy jéem a kàddu gi rek. ndaxte euh, xalifatul amma. naa ci. kanam tuuti tamit. nañ dugg ci mbiru xar yi. kon dañuy jéem gàttal kàddu gi rek. démb am nañu julli yàlla na yàlla nangu seen julli yaa rabbi yaa rabbi yàlla ñu yàgg di julli ak seen njoboot ak seen am du jàmm yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def ñi nga xam ne tamit ñu ngi julli si tey tamit yàlla na yàlla nangu suñu julli yàlla bu yàlla daan suñu julli bu mujj yàlla ñu yàgg di ko jullee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñiy julli tey ñiy julli démb lépp mu ngi ci ndogal borom bi rek lépp mu ngi ci euh, coobeeram wa ma tashaa'uuna illa Allah dara mënul soob loolu asamaanam si lu dul coobeeram lu dul ndigalam lu dul mun mënam ñaari mbir moo am iradatullah ak ma ak ak masiatillah nombel borom bi ak cooberam dara munul xew lu dul cooberam lu dul dara munul xew lu dul nommelam bal faalun li ma yuridu moom maay tey lu ko neex lu ko soob loolu lay def lii yëpp ci cooberam la lii yëpp ci ndogalam la lii yëpp ci nommelam la dañuy ñaan borom bi subhanahu wa taala eh, yal na yàlla bennale mbir yi eh, ba ñu mun a orandoo benn yoon ñu ngi tàllal suñu loxo borom bi su ci kanamam di ko won ne amuñu yoruñu munuñu moo mun moo yor mooy dogal ñu ngi koy ñaan eh, yal na yàlla mbiri doon benn eh, mun naa ko dindi tarafatal ay ci benn seconde du dara ci moom kon ñu ngi koy ñaan yàlla mbiri yëpp doon benn eh, ñuy orandoo ñuy warindoo ñuy koritendoo ñuy tabaskendoo eh, borom bi mun na ko eh, ñu ngi koy ñaan yal eh, ko yàlla def ci barke sangam te mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant borom bi di ko ndokkeel di ko kañ moom borom bi nga xam ne moo ñu bàyyi fii daaw bereen moom borom nga xam ne moñu omat dajel ñu fi daw mu del wat dañ la fi ren daaw ak ren ñu jitu si bir bammel kel xamu seen lim daf ñu dara yalla sen ngan mo jeex rek ñu xamne ne ñun yëpp ay gan nañ yag yag suñu ngan na jeex de so demé ci segi da nga xamne ponkali ñu ngi fay tëdd de alhamdulilah rabil alamin mi yàlla bàyyi fii daaw ba julli ci xayru xalqillah te mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi jëmm ji nga xam ne asamaan musul tiim ki mel ni moom du amati abadan suuf si benn doomi aadama musul di jog si kaw suuf si ki mel ni moom lépp de ki nekk asamaan biir asamaan moo la gën képp ku nekk ci kaw suuf si moo la gën bu nekk doon moom dara du am asamaan du am suuf du am aljana du am lépp yàlla mu koy amal ngir xayru xalqillah ñaan borom bi géej yi ak barkeem yi ak njëgalam yi bu mu deñ mukk di motal di walwali di bambulaan ci kaw Seydina Muhammad ak ku ko roy bépp su yomal qiyaama bi ñu ngi nuyu ñëpp ngi sant mboolem jullit bi yëpp ñu ngi ndokkeel mboolem bi yëpp ñu ngi nuyu di sant di ndokkeel suñu mbokk jullit yi nga xam ne ñoo ñu wóor ñu bàyyi sen diwaan tey ñëw fii jul ak ñun ak suñu diggante ak waajur bi ñii seen maam ak waajur bi la woon ñii seen baay ak waajur bi la woon ñu bàyyi lépp ñëw tey ànd ak ñun la it bi ñu ngi leen di nuyu bu baax ba leen di sant leen di gërëm leen di ci bés bu tedd bi ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yaay yi fi teew mag yi ñu fi teew morom yi fi teew doom yi fi teew sët yi teew ñu ngi nuyu di sant di gërëm borom dëkk te mooy Aboubacar Coulibaly su ko nuyee ñu nuyu xalifaam magam boo Coulibaly ñu ko wax góy ñu nag moom ñoo nekkoon ci jàkka ji guddi ak fajar tisbaar takkusaan timis gee tey naa ko wéradi dikkal naa ko ñu ngi koy ñaanal yàlla yal ko yàlla may kattan yal na guddal fanam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaa ngi nuyu di sant di gërëm képp ku ma bokkal Alpha Hamma ak képp ma képp ku ma Samba di jiital ki nga xam ne moo nekk boppu njaboot bi tey te mooy xalifatu moom Abdoul Khadir ñu ngi koy nuyu bésu tey bi di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ñaan yàlla yàlla yàggal ko suñu kanam ku dal ay fanam wéral ay cërëm sàmm ko zahir abatin mu nekk ak ñun gunge ñu ba at yu tàggoo tàggoo mun na ko yàlla na ko yàlla def ñu nuyu tamit ay mboole rakam yu teew yu teewu tamit ak suñu mboole jigéen ñi nga xam ne ñu ngi seen néeg sey yite bi ñu ngi beesal mbokk beesal kóllëre suñu diggante euh, ak ñoom alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi ci weer bu tedd ñu ngi ci weer bu màgg ñu ngi weer boo xam ne qadruhu jaahuhu azimun inda dayam ak magayam màgg na ci yàlla mooy weeru Zuhijja weeru aj aj weer bii nag ci lañu dem motal juróomeelu farata yi ci makkatul mukarram aj nag mooy juróomeelu ponkeel diinal islaam yonente bi dafa ne bu ne al islaam على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله bu ci njëkk nga seede amul benn buur bu ñu war a jaamu mooy borom bi nga seede yonent bi tamit yonent yàlla la yàllaa ko yebal nga taxawal waxtu julli juróomi nga oor weeru koor génn asaka dem aj néegu yàlla bu mag bi ci jamonoom la ñu nekk nii tey ndaw néeg bu mag ndaw néeg bu tedd ndaw néeg boo xam ne moom la yàlla njëkk a dalal ci kaw suuf si néeg boo xam ne ci jamonoom daanaka mandaraka yumal xiyaamati ci lañ ko gisee ci kaw suuf si ndax soo demee aj da nga fekk ñëpp taraxlaayu dafa xamee góor dafa xamee jigéen du baadoole du borom alal ñëpp ñu ngi bàkk borom bi di ko kañ mooy mandarga yomal xiyaama ci kaw suuf si néeg boobu julli fa benn rakka rek moo gën téeméer junni rakka si suñuy jàkka yi bés bu nekk téeméer yërmande ak ñaar fukk dina wàcc ci kaw kaaba gi yàlla seetale ko jaamam kon aj boobu mooy juróomeelu farata dina lislaam kon alhamdulilah rabbil alamin ñu ko yàlla yombal tey ñu dem tey yàlla yàlla nangu seen aj ñi nga xam ne yàlla yombalal ku ñu ko yàlla bu mu dem suñu kumpa ñu ngi ci bes bu mag tamit ñu ngi bés bu tedd bésu julli iid tabaski ndaw bés bu mag ndaw bés bu tedd bés boo xam ne bés la ci bés yi borom bi subhaanahu wa taala moom ci boppam dina feeñu tey ci jullikaay yi dina yurndu jaamam yi dina jéggal ay junni junni doomu aadama yoo xam ne ay tooñkat lañu woon te malayka yi nañ seede jëfam bu rëy boobu moo tax bésu iit ñëpp dañoo war a teew ci jullikaay yi même jigéen yoo xam ne ñu ngi ànd ak ngànt dañoo war a teew ndaxte borom bi dina feeñ dooleem ci bëri jullikaay yi xool yundu jaamu yàlla yi jéggal ay junni junni doomu aadama xam ne ay tooñkat lañu wàññi malaaka yi tamit nañ ko seede tamit kon bés bu màgg la bés bu tedd la bés bii nag lu ci gën a baax bokk na ci gannaaw tuur deret jokku mbokk gannaaw tuur deret bi tey lu gën a baax tey mooy jokku mbokk jokku mbokk nag dina yaatal wërsëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne sa wërsëg yaatu na ngay jokk mbokk mu ne tamit képp ku bugg gudd fan na nga jokk mbokk kon bés tey bi bésu njokk mbokk la de bésu tey bi bésu ziarante la bésu tey bi bésu ballante àq la bésu sarax la tamit bésu bii képp ku jël benn dërëm joxe ko yàlla dafa la koy a juróom-ñaar fukk daraja kon bésu tey bii nag sunna la woon mu ngi bàyyee ko ci nabila Ibrahima alayhi salaam ci la yàlla digaloon mu rey doomam ci xisa yu gudd ci xisa yu gudd mu daal digal mu daal nangu ndogal borom bi yàlla daal ko wuutu ab xaaf ab kur kuy mu doon sunnatun waajiba ci kaw bépp góor Eh, eh, bépp jigéen sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku yàlla may koom yàlla mun na tabaski defoo ko mun a bul jege suñu jullikaay rendikaat di tabaski su rëyee tabaski alabakam bala may dara bi yàgg suuf rek fekk borom bi jël na ko yomal deret bi ak kawar ak butit yi def daf koy boole def ko ci balancé lu baaxaam yi alhamdulilah rabbil alamin sunnatun bu war la ci kaw bépp jul bu góor bu jigéen ku ko am bés bu njëkk bi nga def ko soo ko amut bésu ñaareel bi nga def ko ñetteel bi nag suñu demee jant bi sow wàcc na sa kaw ku amul tamit bul am naqar bul am tiis sallallahu alayhi wa sallam reyal nañu tabaski mus na rey ci biir dundam ñaari kuy ku yu rafet yu am béjjeen bu njëkk bi mu ne allahu akbar maa ngi rey kuy bi tabaski bi jaama ko suma borom def ko adiya ak suma borom ak suma mbooleen joboot ñaareel bi nag maa ngi koy rendi ñi nga xam ne amuñu tabaski gëm nañu ma maa ngi leen di defal tabaski kon ku ko amul bul am naqar sallallahu alayhi wa sallam reyal nañu tabaski ah, ci gàttal daal ah, ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi ndokkeel ñëpp ñu ngi masaw coono yëpp bi waxtaan ak taalibe waaw ci gàttal daal lii lañ leen andi loon ñaan borom subhanahu wa taala yàlla yàlla guddal fan yi yàlla wéral ci zahir ak baatin yalla sàmmuñu ci zahir ak baatin ñu ngi ziyaare ki nga xam ne moom la xalifa bi wutu tey mu doon taaw ci kër gi Cheikh Mouhidine ñu ngi koy ziyaare ci bés bi ñu ngi koy ndokkeel ku mu tëddee foofu uh, uh, Madinatu Jeylaal ak mboole soxnaam ñi ak mboole jobootaam ñi di jiital taawaam Ibrahim ak mboole rakkam yal na yàlla bennal يلا يلا بنا لخولي قول الفني لول ولا الشيري والسلام عليكم ورحمه الله